lu mu wax ci crise ak post crise mhm. euh, cest à dafa nekk une comparaison vraiment pertinente hein, c'est vrai sauf que mhm. Covid dafa nekk benn élément étranger bu ñëw dugg ci ñun ñu xam nuñ ko gérer rapidement et heureusement ah ñu ñu ñu ñu génn si de de la façon en tout cas la moins ñu koy waxee. en tout cas catastrophique possible. Mhm. par rapport à beaucoup beaucoup d'autres pays qui n'avaient absolument pas les mêmes moyens que le Sénégal mhm. mais quand même on a réussi comme je l'ai dit tout à l'heure à, à fédérer les Sénégalais autour d'un même combat mhm. fii nag moom Euh, ce n'est pas un élément étranger, c'est un élément qui est en nous. Loolu c'est plus difficile à gérer. Mhm. Moo taxoon nag pour man ah xëy na amoon na xëy na amul mais bu bu amoon bu fekkante ne tegoon nañ ko aussi en tout cas man sentiruma ko mais dès 2021 mars 2021 foroon na am vraiment une cellule de crise de gestion de la crise mm -hmm. communication ordinaire dafa war a am communication de crise am avant ñuy wax af af post crise mm mm-hmm. donc vraiment dañu waroon sentir au de euh, pendant ces deux années-là qu'il y avait vraiment une volonté d'inscrire cette affaire dans l'orthodoxie que ça soit judiciaire que ça soit moral que ça soit social donc euh, xëy na pour man foofu la ñu xaw a foofu la ñu xaw a lajjee daal. Mhm. mais bon ba tey en tout cas man am naa yaakaar ni que nit ñi dinañu yeewu des deux côtés puisque maintenant c'est bipolarisé. Ouais, malheureusement malheureusement, malheureusement malheureusement donc. Euh, moi, moi c'est ça en fait qui me rebiffe. exactement waaye ouais, moi aussi hein. Mm. citoyenne avant tout. la politique euh, m'intéresse. Ouais. c'est pas quelque chose boo xam ne je je vais dire que je ne, je ne ferai jamais de politique. Mm. Donc, euh, mais encore une fois, pour moi, c'est moins une question de, de, de politique et d'idéologie que d'hommes et de femmes mmh. qui, mm. sont, pratiquent la politique. Mmh. Donc, man, en tout cas, je fais la différence claire et je, je, je félicite aussi M. Falti Mouarsank. Il faut faire la dichotomie entre les hommes d'État, les hommes du gouvernement et les hommes euh, les hommes politiques tant que sénégalais yi nag amuñu une nation une conscience citoyenne forte du ñu mën a def politique ba ba ñoom suñu eggee ci yenn niveau de décision yi ñu mën a sol mbubbu homme d'état wala femme d'état qui, qui s'adresse ak tout le monde et de la même manière aussi il faut que aussi peuple bi aussi xam ñu am confiance boobu gis nga li ma wax sànq man dama ci dafa nekk loo xam ne dama ko dama koo gëm bu bu fekkente ne dañoo war a dund ensemble il faut que ñu wóoluwante. Mhm. donc euh, il faut ñu egg foo xam ne kii di wax di jàkkaarloo ak yow di nga ko mën a déglu di nga ko mën a jox nopp bu baax bi comme on dit puisque am na nopp bu bon apparemment <laughs> voilà nga jox ko nopp bu baax bi comme ça moom tamit buy wax. mu xam euh, lu lu muy wax ak euh, ñu mu ko seqal comme ça mu am kóolute boo xam ne dinañu mën a dinañu mën a jëriñ des des deux côtés parce mm-hmm. que les institutions demeurent normalement et les hommes passent donc et ça il faut que ñi ñi nekk ci instance de décision ñu comprendre ko ñu nekk ci peuple aussi comprendre ni que il s'agit pas seulement de dire toi dégage excusez-moi de de mm-hmm. l'expression dégagé mais non mais euh, vous pouvez être remplacé par d'autres qui voilà ñi nga xam ne euh, mun nañ leen jox euh, mën nañ leen jox nopp bu baax bi par exemple am confiance ci ñoom voilà confiance